Fatou Nguer gisee campagne bi ci douze candidats yi ak li nga xamante ne mooy euh, yoo xamante ne ci la plus de dix neuf candidats. waaw situation exceptionnelle mesure exceptionnelle loolu la tubaab di wax. situation bi mu àgg ci euh, jours la ñu am comme campagne parce que problème amoon na jaxasoo am na. ñu ne président Macky Sall na jàpp date moom tamit bu fixé date bi. Mhm. kon dem élection lekk ci des. Mhm. loolu moom looloo indi gàttaay bi mais ci biir campagne bi dañ ci def ay remarques yu baree baree bari yoo xam ne mu ngi ci. Mhm. ñii caravane la ñuy def comme ni ko Tans waxee ñeneen ñi dañuy def meeting ñeneen ñi itam dañuy def porte à ñeneen ñi parce que idi boo gisee li mu jël mooy travail sous terrain. Mhm. dem di def porte à porte di waxtaan ak les grands électeurs. moom méthode boobu la jël ñeneen ñi nag préféré. Mhm. ci mbedd bi euh, caravane. folklore parce que boo gisee coalition Diomaye président parce que festival la ñuy def. Mhm. waaw festival parce que fu ñu dem souvent sax dëkk yu mag yi bu ñu fay dem guddi la ñuy dem fay làmp fay euh, affaire yi lëndëm ñu taal seeni lumière am benn foule euh, présenter ko nit ñi ne ñëpp ñun lañ àndal loolu tamit stratégie de communication la mhm. mooy. soo présenté nit ñi benn foule ne man la ñun lañ topp sénégalais ku ne xam na ni day deme ak ak ak li njëkk a ñëw ci moom loolu lay dem parce que ñu bari boo leen dégg dañ naan la jomaay gagné na élection yi jomaay parce que mbooloo mi koy topp te mbooloo moom di ko topp quatre-vingt-dix pour cent ci mbooloo mi amuñu électeur ay non inscrits ñoo ci bari ak ñoo xam ne duñu voté parce que ñenn ñi dëkk yi ñu war a voté ji sax duñ fa dem parce que mënoo xëy di daw dàq benn dix mille francs di ko daw nga bëgg ko fee bàyyi war a joxe dépense war kii bëgg fee bàyyi dem ay kilomètres di voté ji day metti léegi loolu tamit da ciy jouer ak non inscrits yi leen topp ak ñoo xam ne amuñu benn conscience ci ci ci ci ci li ñuy def mhm. ak ñeneen ñi nga xam ne tamit dañ leen topp mooy xam nañ li ñuy def bu baax a baax de mooy par seen intérêt la ñuy préserver mhm. ku ci mel ne ñoom ay Mara ay ay ay euh, bu jaaykatu reen boobu ñoo xam seen i intérêt la ñuy préserver mhm. bugguñu ko yàq yenn journalistes yi tamit dañ ciy topp parce que dañoo am problème mu vie ak abone problème mu vie ak abonné bi ñu am mooy bugguñu seen i abonné dañ bëgguñu seen i vi ak partage jaral na leen lu ne ñooñu tamit topp leen. Mm-hmm. waaw topp leen mm-hmm. moo tax boo gisee seen i meeting seen i meeting wala seen i caravane da ngay gis lu mat ay 17 18 sites yoo xam dañ koy def en direct. Mm-hmm. c'est normal tamit loolu ñoom dañoo dem investir ci yenn sites yi leen yi ñu jublu. fay leen jël leen durée campagne bi yëpp te sites yi tamit ñoom it comprendre naa leen parce que dañuy wut xaalis. ñooñu amur bi dem boo tawee départ dañu suuloon Amadou Ba dañ ko suuloon carrément Amadou Ba kenn du ko tudd ñaar wala Amadou Ba Macky Sall bëggatu ko Amadou benn dañ ko woon ginnaaw parce que clameur bi moo demoon noonu la ñu doon clameur public clameur bi moo demoon topp leen ak coow li mhm. ba ñoom def nañ ci seen xel ne dem jël réew mi rek moo leen dese léegi nag foofu faw ñu wax fax fekk sénégalais yi parce que gis nga élection mhm. ci boo koy analyser voix yi ci yi passé ngay jël parce que ñaari élection yi duñu rawante ay voix élection bii boo amee cent mille voix mën nga ñëw beneen élection bi ci topp mën nga ñëw nga am quatre vingt di mille wala wala quatre vingt mille mais fekkee yaa ngi gérer sa sa sa carrière normal doo wàcc doo wàcc yenn wàcc xanaa nga ñëw bazarder ko dugg ci ay ba bases yoo xam ne après mën na la topp tey boo xoolee ñoom bi ñu demee ak Yewwi Askan bi dañu am benn. Hmm, benn un million soixante onze mille électeurs lañ demoon ak tout yeewi askan wi tout revenu ñoom ñëpp yeewi taxaw ñëpp dajaloo. Mm-hmm. ay piir ak ñoom maasu si jamel ñëpp loolu lañ amoon mais ku ci nekk dem nga sa yoon kon moo tax su ma géggee ay nit naan Basirou day gagné élection yi premier tour damay toog ma ne ñi parce que lii lañ bëgg lu neex Basirou lañ bëgg ak ñu neex ñi leen àndal. pour ñu leen di abonné ak dixième non même bu ñu àndoon ñoom yeewi yëpp un million cent onze mille électeurs mu munoo dem premier tour hmm. loolu demul premier tour kon ba tey ñoom ñi ngi ci suye xelu gaa yi pour hmm. pour di leen manipuler pour ëllëg lu fi mën a wàcc ñu mën ko contester ak violence ak ni ñuy def te beneen bi ci des mooy président Macky Sall mënul woon boot Amadou Ba ànd ak moom di mitin hmm. mënu ko woon a def parce que bu ko defoon da koy nëbb parce que départ ñi wanoon ginnaaw Amadou Ba yëpp kon après dañuy ñëw topp ci ginnaaw Macky di yëkkati kotu Macky di wàcce Amadou Ba te loolu baaxul ci Amadou Ba comme tey nii Sonko di def jomaay di yëkkati kotam di wàcce jomaay loolu xam nga baaxul ci jomaay te dafa yàqal lu bari Sonko chaque jour bu taxawee jomaay mu ngi koy wàcce di yéegal boppam te Sonko moo waroon di wàcce boppam yéegal jomaay mais matam ak ak ak ak xolam bu tàlli loolu mënu ko président Macky nag su su àndoon ak Amadou Ba day yéegal boppam di wàcce Amadou moo tax mu préféré toog ba pare retiré ñi nga xam ne gisoon na ne euh, jubawuñu ak Amadou mun leen kaay leen nekk ministre ngeen liggéey ñi jubóog Amadou mun leen dem leen campagne parce que foofu tamit benn leeral da ci am parce que man bu ma toogee fii ci VIP people damay yor jikkoy observateur président Macky Sall su supporté woon Amadou Ba quatre-vingt-dix pour cent di ànd ak moom ci lépp mhm. suñu programme résultat ñu ne Amadou Ba gagné na dañ naan Macky ko sàccal hmm. su ko toppoon di ko jàppale ci tous les côtés. Mhm. wër ko aar ko bu ñee Amadou gagné na dañ naan du dëgg Macky sàcc. Mhm. mais Macky fallait que mu mel na lu ko jalax. Mhm. sànni ko mel na lu ko doyowul mel ne lu ko lijjantiwul. pour bu Amadou ba gañee mu am mën a am crédibilité en tant que chef de l' état. mën a appuyer ngañaay loolu ak ku mën a gagné Macky bu ko appuyer day nekk lu crédible mais bu fekkoon dafa féete benn côté ñu xam ne malgré tànn na Amadou candidat mais libéré na ko mu dem. ba gis nañ dernier euh, jour yu mujj yi Amadou Ba dafa yor benn biddiw bu go doy waar dafa yor benn biddiw. biddiw biddiw boo xam ne. Mhm. Amadou Ba bi ñuy départ biddiwam dafa fay ñun ñëpp seetlu woon nañ mais dañoo dem benn semaine bu mujj bi la biddiwam tàkk mu mel ne daf leen remonté ci public ci ci ci même ci internet bi lépp da leen a partout plateforme boo jël Amadou Ba da leen dominé parce que ñoom ñoo jox Amadou code ñoo génn saaga Macky sàll de ñoo génn ragal Macky Sall ginnaaw. saaga Amadou Ba daal di saaga Amadou mhm. ni Sénégalais boo boo ko saaga fayiwut rek am na ko sotle ñëwoon fii di saaga nit mu noppi nga koy saaga di ko saaga ñi koy ñi romb ñoo lay njëkk a ñu naan xoolal kii ki saaga rek kii amut ak moom benn di nga koy saaga faalewu ko yow baal jàmbur ñu seen yónne wu ci. Mhm. amaana sax yow la ñuy gën a bokkal ka kee ñu yokkal Amadou code boobu Amadou tamit wax dëgg yàlla luñ ko mën di teg. ak injustice bu mu mës a dund lu mu mën a dund ci parti bi teewul boole na pat ak organisé parce que keroog bi mu ñëwee Fatick maa ngi fa bi muy wax Thérèse Faye bi nga ma meree yëg naa ko kon bi nga ñëwee ci man xam naa ni dëgg la ci yow ba pare day fu mu dem dajale ñëpp wane ne man damaa war a nekk kuy fédéré kon injustice bu mu dund ak lu mu mën di dund wanewu ko jëfewu ko moo tax mu gagné ay points ci ñoom ñoom nag terrain bi kii lañ topp folklore bi festival yuuxaloo euh, way ak seen waajooju borom rasa yi. génne leen mais Diomaye mbooloo. non si dajale na mbooloo. bu majeur bu mat bu mature fële ca Saint-Louis loolu gis nañ ko ci mbooloo bi nga xam ne. Saint-Louis wala Mbour. Saint-Louis bi koy Abdou Guité Seck di wéy ñoom ñoom Sonko. parce que loolu dafa jàpp ne Mbour loolu Mbour la. ah Mbour la Mbour la loolu Mbour la <laughs> te 14 régions yëpp a daje Mbour. ah ñoom dañoo jàpp ni. non ñu ko defee ni ñu damay bañ nax leen ni ñu defee après Kepes noonu lañ def Mbour gis nga mbuur li wër stade bi yëpp ay biis la woon ak i kaar. 14 ah, raisons yëpp lañ ah, dajale xëpp ko mbuur Mbàkke ñëpp mbuur lañ daje ji. même waa Touba keroog bi ma demee Touba dem marché ocas même commerçant jaaykatu téléphone yi nekk foofu ci réseau ba ñi ngi ñi ngi dajaloo naan suba dañuy dem ci mitin ba kon mitin mitin national la léegi nag ci lañuy nax nit ñi mitin national lañ doon def dëkk yëpp ay daje daje benn stade ñu filmer ko lii yëpp liñ ci jublu mooy bu résultat yee génnee. ñu ne ah ñun ñoo ëppoon mbooloo ñun la nit ñu toppoon kon dañ ñoo sàcc loolu rek la ñuy préparé parce que xam nañ dëgg dëgg dëgg dëgg pour nga xam ne ñii dañuy gañe mm-hmm. pour pour maanaam nga jàpp ne Jomaay Fay day gañe il faut nga def sénégalais yëpp ñu dul xalaat ba pare nga ne sénégalais yi du ñu xalaat moo tax faaw Jomaay Fay ay gagné mais bu dee sénégalais ñi nga xalaat di réfléchir di dox ak seen moyen mm-hmm. da xam ne kii mënut a d'accord mais bu fekkente ne nag danga nga jàpp ne ñoom duñ xalaat. Mm-hmm. wala amuñu benn esprit wala ñoom dugguñu ci dara dara dara bugguñu dara danga naan ñii dinañ gañe parce que réew mi fi mu toll la réew mi dafa am lu fi feeñ am yu ñu gane am na jikko yu ñu gane am lu fi feeñ mooy li ñu jikko yu ñu gane mooy nga mer nit yàq alalam nga mer nit taal dëkkëram mag ak rakk jaar ni yaay ak doom jaar ni yooyu yëpp dafay am. te yooyu ñi ko fi indi mooy ñoom jomaay Faye léegi soo leen falee mooy loolu nga gën a dooleel ko parce que nit ñi bu ñu dee xalaat rek faaw ñu fal koo xam ne dina mën a boole ñëpp federe leen mooy koo xam ne du gàtt sa gàtt sa te ba pare fi may jeexale dañoo wane jikko bu immature ca mbuur parce que Diomaye dañ doon dégg nit ñi naan amul jabar amul jabar mu dem gàddu ñaari jabaram indi ca mbooloo ma di weddi tuuma Amadou Ba liñ ko waxal yëpp gis nga mu weddi tuuma liñ ko waxal yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp day kuul xoolal biñ ne ko ñoom Sonko nee na yàgg na ngaa jël ñun la tegal xam nga lu mu leen wax mm. man sama bureau famille ne ñoom joti wuñ fa sax ba naan ma tegal loolu rek la ci wax ñoom ne dañoo gàddu dafa gàddu ñaari jabaram indi wane ne am naa jabar kii gis na bu ñu ko faloon président am luñ ko tuuma xolo bu ñu ko faloon président am luñ ko waxal day dem dajale nit ñëpp def mm. conférence de presse te état du doxee noonu état da ngay suufur nga noppi comme armée gis nga armée bi li ñu leen fi tuumaal yëpp gendarmerie police est que dañ leen dégg ñu wax dañuy noppi rek garde li ñuy su ñuy wax benn communiqué bu ndaw la ñuy génne quelque benn passe lay doon nga lire ko pare ci. ah mais est-ce que du est-ce que du weddi tuuma boobu est xamante ne nee nañ. am na ñoo xamante euh, man ci sama bopp même scandale bi ma koy def demoon naa ba xalaat ni voilà Diomaye célibataire la mm. dem naa ba di ko tooñ xam nga scandale moom damay comédie boo koy dem naa ba tooñ naan est duñ ko takkal tey ci samedi bi Sonko est-ce ko takkal boo koy weddi donc tey li mu def ni yaakaar naa pour setal deram la. non non loolu du setal sa der parce que sa vie privée la am nga jabar amoo jabar sa vie privée la loo koy exposé ci mbooloo mi tey bu amee ñu amoon benn intention ci sa jabar dañ koy mën a am nit day muus léegi ñi ko doon wax est-ce amuñu benn intention ci jabaru Jomaay Fay bu ñu bugg bëgg réussir te xamuñ ndax am na koom déet am ñu koy fexeel bëgg a jaar ci jabaram xam ndax amul jabar wala am na jabar nit ki foo nga yeewu xam nga nit bu nee laa amoo jabar nga dem jël sa jabar teg mu am pexe yum naroon ci yow bu ko jaar sa jabar jabaram am nay mbokk am nay xarit am nay àndandoo est ce que amuñ luñ ko lalal bëgg a jaar ci jabaram moo tax man la ñii mataguñ njiit man tey dem am nga jabar am nga jabar amoo jabar amoo jabar du tax mu jël sama jabar di ko kii ci réseaux sociaux yi comprendre man am na kii nit ku fi taxaw ne ma yow Kolda da nga faa biiral doo ko takk jabar est ce que tax na may génn di ko wan naan ko fii laa takkee fii laa kii jour bi laa kii déedéet damay jàpp li ma jàpp rek xam li ma xam sinon mën nañ ko fexeel ci jabaram kon nit da ngay mat njiit da ngay mat psychologiquement ko defoon na ko place de bi ñu ne ko sa jabar day muur ibaadu la da koo yanu solal ko jiin indi ko place de parce que matuñu tey ku nar kuu ci jabari jomaay rek pare nga pour pour matali loolu la macha allah xam nga rek di Abdou Nguer wax dama fay rebondir registre par rapport ak ñaari jabaram yi donc je crois que moom dafa nekkoon ci benn logique boo xamante ne mooy campagne campagne lan lañ soxla woon maanaam proposer un projet proposer programme donc ci biir wax rek c'est-à-dire mooy li may waxaat Pastef dañoo fen parce dañoo toog ñi ne Macky Sall dafa ragal Ousmane Sonko moo tax mu tëj ko waaye ba su Ousmane Sonko bokkoon ci élection yi 11h carte yi jeex loolu la ñu waxoon. Mm-hmm. léegi ñu jékki-jékki Ousmane Sonko bokkul ñu ne Sonko mooy Jomaay donc ñoom xamal nañu ko Sonko du Jomaay ñoom ci seen bopp xamal nañu Sonko du Jomaay ndaxte su doon Sonko mooy Jomaay rek donc je crois que Jomaay su demee donc 11h rek élection yi jeex mais su ñu demee bay jël ay alliés. di jël ay Mimi Touré Abdourahmane Diouf di ko yokk seen doole bay teg seen programme donc ça veut dire que ñoom xam nañu mënuñu gagner sax chef de quartier ce que je vous dis manipulation lañ nekkoon ak mensonge fen te ñoom seen fen yi ñoom ñoo koy décortiquer seen bopp donc je crois que ki nga xamante ni Sonko mooy Diomaye donc euh, un Diomaye Faye tey warul mën a wax ba Sonko di ko naan sa sikkim bi war nga ko war un Diomaye Faye warul taxaw di gàddu ay bale comme ñoom dañu am projet boo xamante ni moo war a changer Sénégal dégager système bi donc campagne leen waroon trois minutes RCC doy na la chaque jour ñu toog programme bi nangam projet un deux trois ñoom ñoo moomoon euh, réseaux sociaux yi ñu def ko ci réseaux sociaux yi mais tey gis nañu Amadou Ba Anta Babacar Ngom Thierno Alassane Sall dañu leen dominé ci réseaux sociaux yi mooy wone lu dul dëgg du yàgg parce que ñi toppoon projet bi sax xëy na jëmm Ousmane sonkool moo leen neexoon tey bi ñu gisee yi ñu ci bëri dañoo am découragement ba si seen.